jafe-jafe am na buñ ko laxat am na benn femme bu ma woo muy liggéey ci inspection d'académie de Dakar bi affaire yi amee coow mu ne ma Ablaye sant leen yàlla 2019 ñaata million de sénégalais ñoo leen teeru à l'aéroport yóbbu leen palais bi ngeen jógee Coupe d'Afrique te gañewu leen xale yi ñaan président mu génn mu wax ak ñeen tey bu amee yenn xale. yu génn ci mbedd mi waxee ne neen déglu leen jàngat li ñu wax xool lan lañ ci mën a def wax dëgg yàlla loolu la président def ci manifestation yi ñu gis ci ndakaaru ak yenn dëkk yu mel ni Ziguinchor jàngat biñ ci mën a jàngat am na ñu ci duggu ngir politique bëriwuñ sax mais am na ñu ci dugg ngir Ousmane Sonko. am na ñi nga xam ni caay-caay la ci dugal sàcc alalu jàmbur yàq alalu jàmbur rey doomu jàmbur ñooñu justice dana leen topp am na ñu nga xam ni dañoo am seen jafe-jafe état d'urgence depuis un an xale yi nawetaanuñu xale yi fubaluñu xale yi doon daan seen doole guddi di ci am ay 1000 francs ak ay 500 francs amatuñu ko. mënuñ dundal seen njaboot jafe-jafe jooju boo ko buggee occulter nga ne dara amu fi am na li fi am loolu la président def jàngat ko toog ne il ma jàngat lii li fi xew parce que li ma fi def entre 2012 ak 2000 ak 2020 mu toll nii ci 600 milliards ma dugal ko ci luy luy jëmale kanam jigéen ñi luy jëmale kanam xale yi su xale yi réagiré nii war naa xool lan la. war naa xool lan la buñ ko xoolee xayma am na lu nga xam ni ci xëyu xale yi la président dana ci faj lu bëree bëri am na lu nga xam ni ci épanouissement wu jeunesse bi la loolu itam du état rek moo ci war a jàngat ñi yore organisation de jeunesse ci Sénégal war nañ koo jàngat itam ñi yore mouvement nawetaan jàngat ci ñi yore conseil de la jeunesse yi jàngat ci xam ni une jeunesse a besoin de vivre une jeunesse a besoin d'être occupée une jeunesse à besoin ñu créer de l'espoir autour d'elle loolu tamit du état rek moo ci jàngat chef de famille yi war nañ ci mën a aussi jàngat ñu bëri seen doom am nañ ci ay jafe-jafe te xamuñu woon ni seen doom yaa ngi foofu kon war nañ ñëwaat ci éducation dans nos familles et dans nos maisons buñ ko jàngatul ni ñu ko war a jàngatee leneen dina fi a bettuñu beneen bi dañoo nekk ci parti dañu nekk ci coalition bu am cinquante huit pour cent Idrissa yokku ci kon mën nañ dem ba ay soixante pour cent quatre vingt pour cent mais mënuñ ñëw di ñu xëbal ñuy daw kenn waruñu mën a xëbal bi ñuy daw ba di remettre en cause wax ay légitimité ak ay révolution laa révolution je l'ai entendu parler de révolution gis nga réewu démocratie au vingt et unième siècle di wax révolution mooy xamoo addina si suñu constitution boo xoolee suñu constitution wax de révolution ci Sénégal ci 2021 c'est mépriser l'histoire politique du Sénégal c'est mépriser les luttes démocratiques qui ont conduit à ce pays à ce niveau c'est ignorer notre constitution La Constitution du Sénégal, il n'y a pas un seul mot où on parle de révolution. Il a des instances démocratiques. Il faut qu'on respecte aussi les institutions. Magistrats yu nekk ci justice dañoo jàng ñefe def concours ak fi ñu nekk magistrat tegu leen foofu c'est comme préfet yi ak gendarme yi ak policier yi dañoo jàng xeex ba àgg fa magistrat tegu fa kenn suñu buggee réew bi ñooñu lañ war a jox orma respecté leen mënoo ne respecté woo institution yooyu attaqué ay gendarmerie attaqué ay police attaqué ay brigade d'eaux et nga ne bëgg nga l'avenir de ce pays loolu ce n'est pas à Macky Sall de se défendre opposition nekk opposition c'est un droit ñu respecter opposition mais loolu c'est un principe démocratique war nañ mën a respecter l'opposition l'opposition nekk dans son travail le pouvoir nekk dans son dans ses devoirs moi je respecte l'opposition je respecte la contestation parce que Lamine Gueye dafa ne woon un oui n'a de sens que lorsqu'on a la possibilité de dire non et les Sénégalais ont la possibilité de dire non on peut pas ñu construire li ñu construire ni ñun des années et des années ceux qui parlent de révolution ils ont oublié qu'en 88 au Sénégal les gens votaient sans isoloir. En 88 au Sénégal, les gens votaient sans carte d'identité nationale. Les droits de l'opposition n'étaient pas consacrés par la Constitution. Celui qui parle de révolution, il ne savait pas qu'avant 2000, la marche, le droit à la marche n'était pas consacré dans notre Constitution. Ces batailles démocratiques qui ont fait que l'opposition est devenue une institution dans la Constitution les droits et libertés respectés. On peut accepter de faire un débat sur l'état des droits et de la démocratie au Sénégal. Tout ce combat pour arriver à un Sénégal de paix, de dialogue, dans une démocratie apaisée, on va venir de l'ex nihilo et dire non, rien n'existe dans ce pays, il faut une révolution qui partira du Sénégal. Non Nous, nous, nous, manquer de respect. manquer de respect manquer de respect manquer de respect à toute l'histoire politique du Sénégal manquer de respect à tous les combats menés pour arriver là où nous sommes et se prendre pour un prophète ou mais loolu ce n'est pas le combat de Macky c'est notre combat à nous et c'est pourquoi notre parti et notre coalition war nañoo am taxawaay bu gën a dëgër pour préserver la stabilité de ce pays kon kay li président waroon def def na ko kon li ci des xale yi xayma lu tax loolu yëpp mënuñ koo sentir lu tax li président def yëpp lu tax am na ay xale encore Sénégal yëgaguñ ko loolu mooy suñu liggéey lim ñu sant ñun mooy lu nekk ci loolu nañ xayma lu tax xale yi ci Ndakaaru manifester nañ manifester nañ ko xayma nañ ko jàngat suñ ko jàngatee le 10 avril moom mu def conseil présidentiel jël ay ndogal yokk ci ne fii ak ñetti at dana def 350 milliards dans l' emploi et les activités de jeunesse ren ren 2021 assemblée nationale dana jot loi de finances rectificative pour mettre 150 milliards et mu bëgg 150 milliards yi koppet bu ci gën xale yi nañ xam fan la dugg ak naka la jaar. te du ko dénk kenn ci contrôle bi moom ci boppam moo koy contrôle parce que nag ñu dañu am chance am président bu nga xam ni màggetul naaxul opposition waxuñu nga saaga nit ñi opposition waxuñu ngay xaste waxul dëgg wax dëgg rek mais au moins nañu respecté wante xale yu nekk fii ne beneen parti la nekk am nañ ci droit mais amuñu droit di saaga nit te bu ñu saagaa Macky Sall ou bien saaga Ousmane Ndiaye ou bien saaga Ablaye Sow rek si suñ doxalin nii la ah oui il faut aussi quand ñun ñu dox suñu rool lu ñu war a def ci réew mi waruñoo leen bàyyi ci réseaux sociaux yi man am na ñoo nga xam ne bi affaire yi commencé tàkk woy guddi guddi waaw laay sa kër mbaa sécurisé ngoo mbaa dem nga fa ay alkaati man du ma fa def dara ba fa def dara bu ko waa Kaffrine buggee taal nañ ko taal man affaire alal àddina yi topp ma ko yàlla ma joxoon bu ko jëlee rek ma bàyyee ko ko li des nag mooy ñu delluwaat ci liggéey ba ñu leen ñu baal leen ñi ñu saaga ñi wax lu dul ñi inventé ñu baal ñu delluwaat liggéey parti bi ñu sàmm ko mbir mi du yore ngaam rek du yore ak maam rek aussi liggéey na ci base bi toppatoo militant yi xam nga c'est bien beau di waa ministre ubbil sa téléphone nii na mais yow mii itam toppatoo ñi nga nekk sa koñ ku ci nekk na toppatoo ki mu nekkal